ñaari wax yooyu moom yii ma gën a naqari la bokk li tax ñaari doomu Sénégal yu jàngale yu am xam-xam maanaam li tubaab di wax cadre supérieur man bokk naa ci ñi doon kontaan loolu bu ñu gisee ñu mel ni monsieur Sonko dugg ci politique nekk cadre supérieur parce que je pense que loolu manqué woon na ci Sénégal que ay xale yu jàng am xam-xam bëgg a dikk ci politique bi loolu daf doon dal xel ci li ñu ñaan euh, ñu dañu war a bonifier classe politique bi dañu bëgg débat politique bi gën a nekk débat technique débat économique bañ a nekkati ay xuloo ki xeex ñu xalaat ni boo jàngee ba ak ci yenn niveau yi am responsabilité yi doo nekk ci loolu donc loolu rafet nañu rafetlu aussi fugg bi mu amoon macha allah fu ñu wootee mu ñëw wax ci li mu xalaat mais man li may déplorer rek moo di euh, am na loo xam ne war nañ ko gën leeral mu di confusion yi am ci ñun homme politique yi ci liggéey yi ñuy def ci syndicat politique ci syndicat yi nga xam ne bon c'est des syndicats la plupart qui parce que combat bi benn la fii da ngay opposé wu la opposé wu loolu la ñu gis malheureusement te mënoon na bañ a demee noonu te ñun ñi nekk intellectuel ñoo waroon gën a woon pousse ci loolu donc man li ma li ma ci xawa naqari rek te ñagas moo di bu ñu moytuwul dana mel ni euh, dafay utiliser liggéey bi muy def parce que liggéey bi muy def ak débat yi ma gis mu koy wax différence su xajale li muy liggéey ak li muy wax ak lu ciy politique ak lu ciy domaine public dafa dafa yomb dafa jafe premièrement deuxièmement syndicat bi ni ñu ko waxee ak ni mu taxawee ak ñi bokk ci parti ni ñu jiitee syndicat bi moom aussi fonction ba mu fa combat am ak combat parti am dafa ak syndicat bi dafa jafee xajale donc confusion yooyu pour éviter ko je pense que référendum yi indi ci solution ñu clarifier les jeux de de kii leneen li mooy indi étique éthique waru fi mën jógee parce que gouvernance administration du mooy li ko duñ dafa leer sa liggéey ak sa action politique dafa war a leer bu doon médecin bu gis lu mu xamul ci nit boo liggéey ci combat politique mu mën ko ko wax wala boog juge bu gis lu mu xamul mu mën ko ko wax wala sax même professeur d' université boo xam ne nii ma nga université am na étudiant yoo xam ni am nañu kii mu wan leen lu mu kii kon loolu day day day kii donc ñun ñëpp ñoo war a jël xam lan mooy règle yi lan la ñu mën ak lu ñu mënul mais ñu def loo xam ni kenn du ñu mën a jiñ ba mu bu dul dëgg la sax kenn du ñu mën a soupçonné ci li ci des mooy boo bokkee ci système aussi démocratie bëgg asseoir réew mu taxaw su fekkee sanction dal na ci kaw sa kaw da ko war a nangu même bu dul yoon la am nga voie recours nga recours ci donc bu say patron dafee constat ni yaakaar nañ ne li ngay def àndul ak li nga xam ne mooy sa éthique ñu teg la ci yoon et loolu aussi du lu ñu inventé quand même commission de discipline loolu am na fonction publique moo di le ministère employeur qu'une commission disciplinaire déglu la yàgg yàlla nañ ko fi def ay ay ay ay leneen li ci soxna si Nafi Ngom li ma wax rek vraiment man ci ñu ko naw laa bokk ci ñu ko sopp bokk ci xadaram ak euh, aussi euh, loolu moo tax sax defe na président la République amoon confiance ci moom ba jox ko li mu ko jox mais damay dellu rek ci li suma xarit Alioune Badara Cissé wax vraiment fonction yi mu utile yi mu occupé ak niveau bi mu toll ci fonction publique di inspection générale d'État ak euh, connaissance bi mu war a am ci état ak xam bi mu war a xam l'institution qu'est le président de la République ak xam ni aussi président rek moo am droit loolu ko yoon ko ko jox nommé aux fonctions civiles et te à part compétence yi nga mun a am parce que compétence boo am nag am na fukk yu ko am ci yow kon la cay gën a déterminant pour ñu ne la mooy confiance rek bi nga xam ne président am na ko ci yow même boo demee ba confiance bi amatul bari na ñoo xam ni quand même boo leen joxee mais kii responsabilité dem ba ñu gis ni amatuñ confiance démission nañ sax dem parce que boom boo ko deful doo liggéeyati ci sérénité bi nga xam ni moom nga nekk donc euh, euh, man li ma bëgg a wax mooy bu moo ko mënoon a ñaan daal <laughs> dama ko ñaan fratel au nom de la république aussi hein parce que gis naa mu muy wax ne effectivement combat de principe lañ mais ci combat yooyu man tamit ak ñu bëri ci lañ nekk le président la République est une institution ki nomme aux fonctions civiles et militaires sur de la confiance et des critères qui se définissent lui-même. Il met fonction aussi dans euh, effectivement y des délais euh, pour certains. Et dans l'espèce, le décret et les informations que j'en sais, effectivement, euh, ont, on, on estimé que la durée du décret était du 27, euh, donc mars, du, 27, du 25 juillet 2013 au 25 juillet 2016. Et, et, donc, je pense que le recours est aussi euh, quelque chose, effectivement, qui est du droit euh, de, de, de, tout plaignant. Mais c'est, à mon avis, la preuve encore qu'effectivement, il y a un système judiciaire qui fonctionne et une démocratie qui fonctionne dans ce pays. recours bi ngay ñaan ko moom kilifa la ah, am na cër liggéey na amoon na confiance bu am bu président Wade jox koy mission président Diouf d'abord président Macky noonu mission boobu jeex na yàlla jeexal na ko mu toll place am toog ba yàlla joxaat ko ba beneen mission parce que je pense que am na lu mu war a liggéey ci réew mi inspection générale d'État du caaxaan et aussi euh, réew mi soxla na euh, ñu mel ne moom ñoo xam ne bu ñu leen joxe mission danañ ko def ba mu àgg fa mu war a àgg